masawu yi tamit yi nga xam ne ñoom ñoo yàqule ci li nga xam ne jaar na fi muy manifestation yi di leen masawu bu baax a baax a baax a baax a baax di leen jaale ñi ñàkk ñu ngi leen di jaale di leen jaale waat ndax jaale woon nañ leen waaye duñ daj mukk ci di leen jaale ak di leen masawu di féliciter président de la république son excellence monsieur Macky Sall di réitérer aussi sama engagement sam ci moom féete gi ma féete ak président de la république son excellence monsieur Macky Sall dama ciy kontaan di ko rey waat fii devant le peuple sénégalais devant ñi nga xam ne ñoo ma yebaloon ma ñëw teewal leen fii ci réew mi ci ci pencum ndaw réew mi ñu tey am lu la fi indi madame la ministre muy loi amnistie entre deux mille vingt et un mois de février ba mois de février deux mille vingt quatre mu am yu fi xew am samay ay collègues yu fi jaar ñu bëri kenn ku ci nekk ci ñoom wax. kenn ku ci nekk ci ñoom it man lijjanti ma boor bi wala boor bële li ma lijjanti te taxoon ma dikk fi mooy taxawal sama askan taxawal sama peuple am nag koo xam ne falaa féete muy le président Macky Sall ma gis ci moom gis-gis boo xam ne moo tax ma àndoon ak moom ba tey ji ma ànd ak moom di ko rafetluwaat tey mooy gis naa ci moom bëgg réewam gis naa ci moom humble gis naa ci moom am yërmande gis naa ci moom bëgg Sénégal jëm ca kanam fi mu ko jële woon ñëpp xam nañ ko fi mu ko excel tey ñëpp xam nañ nit nag boo nekkee ci li nga war a nekk du ñàkk ñoo xam ne dañuy doon ñoo xam ne dañuy toujours ay ñaxtukat la ñuy doon ay nit ñoo xam ne seen intérêt personnel moo leen ñor parce que tey gis naa fi ay député yoo xam ne ñu ngi taxaw fii di contester li nga xam ne mooy juboo bu ñuy séntu ci suñu réew ndax nag Sénégal dafa nekk pays boo xam ne dañuy séntu pétrole di séntu gaz mu nekk pays boo xam ne tey stabilité bi ñu fi doon séntu nee nañ carrément am na ci loo xam ne manqué na ba tax na am na ñoo xam ne ñu ngi waroon ñëw di investir ci réew mi ragal nañoo ñëw investir te réew mi nag ay liggéeykat fi dëkk yu bëgg réew mi dal tey moom xam na ne le 2 day dem xam na ne dina am ku ko wuutu ba mu bëgg réew mi nga xam ne moom lay bàyyi te askan wi wóolu woon ko jox ko ko mu dem ba war a bàyyi te yàlla moo ne bépp nguur bu dul sama nguur day jeex mu gëm ko nangu ko tax mu doxal lii bëgg réew mi dal nekk ci jàmm ñi nga xam ne ñàkk nañ ñu gën a góorgóorluwaat gëm yàlla te moom it mu sooraale leen te xam ne am na ñoo xam ne dañoo dajale fanweeri at liggéey te ñàkk ko li ñu wax dëgg la ñoom war nañoo leeral ñun ba tey ñoo ngi féete droite ñoom ba tey ñu ngi féete gauche parce que am na loo xam ne bu amee ci réew mi ñoom ñoo ko fi indi tey président Macky Sall xoolul kii wala kële li muy def da koy def teg ko ci yoon lay dem yoon ñooy xool ñi nga xam ne seen ay fee war nañ leen a mën a bàyyi ñu bokk ci amnistie bi ñi ci bokkul kenn du leen bàyyi kon danaa ko voté parce que nag intérêt général moo nekk ci kaw lépp réew mi suñu réew la ñoo ko bokk kenn mënu koo xar ñaar te kenn du ko xar ñaar te moom mi nga xam ne réew mi ko wóolu woon mu liggéeyal réew mi fukki at ak ñaar war a dem war a tàggati koo jaar ci une grande porte ñi soxor bañ mu jaar ci grande porte ñoom ñoo ne duñ voté loi bi te ñoo fi doon taxaw di wax ne dañ koo nammu ñoo fi doon taxaw di wax ne ay soxnaam ñu ngi ñaan soxna président Macky Sall pour mu bàyyi seen borom kër mu dem ndax jaboot la ñoo fi doon taxaw di lim ñi nga xam ne dañ leen fee jàpp am na ñoo xam ne dara dal na leen te defuñ dara am na ñoo xam ne dañoo def moo tax dara dal leen kon madame la ministre dinaa voté loi bi te dama koy voté avec tête haute rusuma pour kenn dégg ma bo ñàkkum damay voté loi bi que du ma voté loi bi parce que bu ma duñ ma voté du boo légee su ma demee sama sama gox duñ ma voté parce que ànduñoo ak loi bi damay voté loi bi parce que gëm naa ne nguur yàllaa ko yor te neex la koy jox. damay voté loi bi te li tax may voté loi bi sama à l'intérieur de moi yàlla moo a gën a xam lan la Amy Ndiaye di wax ndax dëgg la wala du dëgg damay voté loi bi parce que damaa bëgg Sénégal nekk ci jàmm ñu commencé waat dem en avant ba nga xam ne ki nga xam ne moo war a wutu président Macky bu ñëwee day teg rek dem comme ni ko président Macky Sall bëggee te loolu yàlla na ko yàlla def mu nekk Amadou Ba mi nga xam ne moom la ñu président Macky Sall tànnal ne Amadou Ba mii laa joxoñ bu ma fi jógee ëllëg ma waroon li ma commencé woon ci liggéey dina ko eggale te réew mi nekk ci jàmm ñu ànd ci dëgg ak njub maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam dinañ ko voté incha allah bu soobee dina jàll